bàcc ci opposition la jóge woon mbatt moo dellu sa ndaala rek xam nga gileem moom soo ko su yenob sëf jëm gànnaar koo gis jommi woo day ñibbi bàcc opposition lañ ko jële woon sax xam ne Sonko mbiram dafa ànd ak ay ak njàqare ànd ak deret mbiri Sonko ku mat a moytu ku mat a moytu la Sonko bi mu génnee treize personnes ñoo dee génnam boobu bi mu nee tekk génnaatu bi mu génnaatee dem Casamance deret dafa tuuru. xam man nag bëgguma focaliser wu ci turu Bathie Sock parce que man duma ko jox importance boobu ndax xam naa ko pesé wut lu toll noonu aussi.